asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu maa ngi nuyu euh, jeune dame républicain bi nekk ci salle bi yépp bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu ñépp di nuyu ñi nga xamante ni amoon nañu yéene teew fii te mënuñoo teew ñoom tamit ñoo ngi leen di nuyu ndax kenn nattablewul ne ñi ngi ci waajtaayu màggal donte ñu bari dañoo am ay kër Touba peut-être loolu moo leen empêché di nuyu di ziar ñi nga xam ne ñoo fi teew ñépp Euh, di jiital nag ci nuyoo bi président de la république monsieur Macky Sall ñoo ngi koy nuyu di ko jox wàccuwaayam di ko wax ne kontaan nañ ci liggéey bi nga xamante ni moom lay liggéey fii ci réewum Sénégal parce que dama naan président jiga diwuñu bi mu fi toogee ci la ñu am stade bi nga xam ne jeunes yi yàgg nañ koo jooy bi mu fi toogee la ñu am li nga xam ne mooy coupe d'Afrique kon gàcce ngaalaama président deseelatuñu dara ñun ñoo ko deseel ma duggaat tuuti di nuyu ci suñu responsable yi nga xam ne ñoo nekk fii au niveau di Guédiawaye may jiital ci nuyoo bi suñu njiit ci buntu politique muy président Lat Diop directeur de l'ONAS ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ko wax ne gis nañu teewaayam fii ci géejawaay ni mu fii liggéeyee kenn naa tablewul ne science yi ñu génn jàpp na ci bu baax ci commune par commune jàpp na ci fii ci Ndakaaru jàpp fii ci région yi kon ñu ngi koy remercier bu baax rawatina nag emploi yi nga xam ne mi ngi ciy jàppale jeunes yi te loolu rek la ñu soxla ñu ngi koy remercier bu baax a baax bu ko defee ma dugg directement ci sujet bi nga xam ne moo tax ñu teew fii di wax ne lii ñu def nii dañoo bëggoon a def marche dox ba buntu tribunal ñu taxaw fa wax suñu ay yitte waaye nag jaam ak pexeem yàlla ak dogalam mu jëwul antu moo tax ñu ñëw fii woo suñu ay jeunes pour te wax li ñu naqari parce que nag kenn naatablewul ne jigéen moom mooy yaay ñu nekk ay jigéen nekk ñoo xamante ne ëllëg ñooy jur président ñooy jur ministre ñooy jur wàlliwu ñooy jur xuddu samaam kon bu ñu demee ci euh, nit bu am ak moroomu nitam problème muy Adji Sarr ak Ousmane Sonko boobu ba tey ñun jigéen ñi ñu taxaw di xaar géggagul procès boo xamante ni mi ngi fiy am kon dañuy interpeller directement ministre de l'intérieur di ko wax ne bëgg nañu procès lu mu gën a gaawee muy Adji Sarr ak monsieur Ousmane Sonko procès boobu nag fii ak taxawut monsieur Ousmane Sonko du ñu mës a nangu candidature am présidentielle yi ñu jëm du ñu ko mës a nangu jamais jamais fii ci Guédiawaye ñu taxaw nag wax ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome ñoo ngi koy wax mu doxal procès bi ci nu mu gën a gaawee di woo ministre de la femme Ndeye Saly Diop Dieng di woo Néné Fatoumata Tall ministre de jeunesse ñi ngi leen di tàllal loxo ñoom ñëpp ci nu mu gën a gaawee parce que nag affaire bi dafay bëgg a yàgg te suñu tekkaaral foog naa ne moo waral boobu ba tey euh, ñu bàyyi waa ji rek mu nekk ci lu ko neex yore ndëndam rek ubbi micro yi rek di wax loolu nag dañ moo fiy jeex fii ci géejawaay dafiy jeex loolu la dañu ne avant élection dañoo soxla projet Adji ak Ousmane Sonko pour mu leer parce que viol dafa nekk loo xamante ni dafa dangereux bu ñu ko tegee ci euh, nit damaa yaakaar ne yaay ak doom suñu jotee bu papa ñëwee il faut mu àtte àtte bi nag boobu ba tey ñu ngi koy xaar ci diggante Adji Sarr ak Ousmane Sonko boobu ba tey ñu ngi koy xaar gisagun dara ñu ne jamais. jamais ay élection fii ci Géejawaay tant que projet bi jàllul Adji Sarr Ousmane Sonko leer ñoo ngi remercier ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw euh, di remercier presse bi nga xam na ñoo fi taaw merci beaucoup. camarades chers journalistes bonjour nous allons commencer ce point de presse par réitérer notre soutien indéfectible au président de la République son excellence Macky Sall dans sa marche résolue pour un développement durable de notre nation, le Sénégal. Notre engagement pour la prospérité, la stabilité et la quiétude de la population sénégalaise. Chers camarades, nous sommes plus que jamais déterminés à le soutenir dans ses combats au plan national, africain et international. Nous félicitons et encourageons tous les leaders locaux de Guédiawaye pour avoir dans l'unisson, avec dévouement et efficacité, lors des dernières échéances électorales, travaillé pour une victoire de la coalition Benno Bokk Yaakaar mais comme disent les Wolof atte boo gis am na jàppal ma diw on ne peut ne pas louer le courage et magnifier l'attitude de notre leader le digne fils de Guédiawaye monsieur Lat Diop directeur général de la qui s'est battu corps et âme en sillonnant rue par rue, quartier par quartier, commune par commune et parfois même département par département pour mobiliser les militants et sympathisants de la coalition Benno Bokk Yakaar. Chers camarades, nous voulons aussi rappeler à l'opinion nationale et internationale que nous avions voulu organiser un sitting devant le tribunal de Guédiawaye pour prononcer sur l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre depuis plusieurs mois de la principale victime, Madame Adissar. Mais malheureusement, nous n'avons pas, nous n'avons pas obtenu l'autorisation, ce qui explique notre déclaration de presse aujourd'hui. Nous estimons nous, jeunes dames de Guédiawaye, que cette affaire soit tirée au clair pour le bonheur de nos familles, l'éducation de nos enfants, mais surtout pour la protection de ces catégories vulnérables à l'intégrité des personnes dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. D'où le viol ne saurait être promu dans ce pays et nous savons tous que c'est une affaire de criminalité. Le viol est criminalisé par la loi numéro 2020-05 du 10 janvier 2020, modifiant la loi numéro du juillet portant code pénal. Et pour juste brosser l'exposé des motifs de la dite loi, les violences sexuelles constituent des formes graves d'atteinte de mutation de la société. Chers camarades, sur ce, nous interpellons le ministre de la Justice monsieur Malick Sall madame le ministre de la femme madame Ndeye Saly Diop Dieng madame le ministre de la jeunesse madame Néné Fatoumata Tall et tous les hommes de justice à se pencher sur cette affaire pour que justice se fasse de façon impartiale. Nous interpellons également le ministre de l'Intérieur, M. Antoine Félix Diome, que nous n'accepterions pas la tenue des élections ici à Guédiawaye ici à Guédiawaye tant que justice soit faite nous en tant que jeunes dames républicaines de Guédiawaye à partir d'aujourd'hui nous lançons le concept pas de candidature sans élection je répète nous jeunes dames républicaines de Guédiawaye nous lançons aujourd'hui le concept Pas de candidature sans procès. Car c'est inadmissible de voir un présumé violeur, en l'occurrence Ousmane Sonko, déclarer sa candidature dans un contexte où son jugement pour une affaire de crime est devant le juge. De ce fait, accepter la candidature d'un présumé prédateur sexuel est une provocation qui révèle d'un éventuel criminel sans précédent à franchir la loi dans un pays d'état de droit, d'où le viol est criminalisé par le code pénal, mais aussi prétendre à la magistrature suprême sans chercher au préalable à laver son honneur. Camarades sénégalais, il serait mal vu, immoral et même anormal de laisser Ousmane Sonko, violeur de Adissar, présenter sa candidature Cette candidature est aux antipodes de nos valeurs sociales. Aucun Sénégalais ne doit l'accepter sans que justice soit rendue à Adissar. Nous, femmes, jeunes dames républicaines, n'ayons pas peur aux insulteurs qui sont tous détournés par un prédateur sexuel qui se nomme Ousmane Sonko. Ces insultes ne pourront jamais résister face à la nécessité de rendre justice à Adji Sarr. est-il s'avère coupable des faits qui l'accablent et qui parvenait à être élu, nous aurons droit à un criminel numéro un de cette république comme le Sénégal qui prône un pays d'état de droit. Posons-nous la question, qu'adviendra-t-il à sa victime Adji Un objet sexuel délivrée à elle-même, à la merci du président de la République. Chers camarades, nous savons tous que Ousmane Sonko ne cesse de dire qu'il est comploté, mais paradoxalement, il identifie sa charnière défensive d'une quinzaine d'avocats, tel un club européen qui se prépare pour la Ligue des Champions. En tant que femme, en tant que sœur et en tant que mère, Nous réclamons justice dans ce dossier, y compris les 14 personnes décédées, et lançons un appel à toutes les femmes de former un bloc pour condamner cet acte qui pourrait être fatal pour notre société. En tant que femmes, nous devons avoir un droit de regard sur l'éducation de, nos sociétés et tout ce qui la menace. Chers camarades, chers journalistes, nous vous remercions de votre aimable attention.